gën a jox doole li nga xam ne mooy PME yi ngir mën leen a dimbali ci wàllum transformation ak li nga xam ne mooy wàllum commercialisation ci produit yi nga xam ne daal moom lañu bay fii ci suñu réew waaye tamit ñu mën koo méngale li nga xam ne moom la ñuy daal di yaa jéggaani. donc consommons local. loole mooy jeexitalu juróom-ñeenteelu édition bii di salon des banque et PME waaye ngir ñu mën cee yegg nag faaw rek ñu jaare ko ci gën a équilibré produit yi nga xam ne ñu ngi koy jéggaane ci bitim réew ci ay koppar yu takku te loole nag li ko gën di waral mooy ay choc yu jóge ca bitim réew. des importations de produits alimentaires de base. produit nga xam ne moom la ñuy jéggaani te ñu ciy euh, dundee lool loolu day yokk rek ci téeméer boo jël ci fanweer ci ci atum bi nga xam ne mooy deux mille vingt deux yi kon tamit dañu war a baral ay jéego ci li nga xam ne mooy wàllum dialogue ci diggante ñu ñi ak consommateurs yi ak ñi nga xam ne ñooy commerçants yi ak producteurs yi ngir ñu mën a indi saafara ci def promotion ci li nga xam mooy wàllum koom bokk na ci mesure yu ñu war a jël mooy gën a dooleel lëkkaloo bi diggante banque yi ak PME yi loole nag muy ñaxtu artu kii di ministre Abdou Karim Fofana. les jéego yi nga xam ne état bi def na ko léeg-léeg dayut waaye tamit foog secteur privé bi mën ñu ci gën a dimbali gën ñoo pousse waaye tamit moom bi nga xam ne mooy secteur privé naam ak daal ci lëkkale ak banques yi. ñaxtu boobee nag ñii di responsable banque yi dégg ko bu baax. bu delloo ci lëkkaloo ci diggante banque yi ak entreprise yu diggu doomu yi lëkkaloo bi ci partenariat la naam waaye tamit ñu ngi koy euh, gën di suuxat. un financement adéquat en nombre waxtaan bi le nag ñu nar ko wéyal lu toll ci ñeenti bés fii ci place di souvenir africain ci teewaayu institution yi nga xam ne ñoo yore wàllum financement ci réew yi bokk ci kuréelu UEMOA ak responsable banque ak pm ñu nar ci yokk xalaat nag ci yan anam lañu ñu gën a dooleele lii di consommer local ci réewu UEMOA yi